guléet Serigne Mountakha Mbacké Bassirou daal di génn ci réew mi gannaaw lu tolloog ñeenti at yoo xamante ne mu ngi nekk ci bopp jal bi nekk xalif général de Mourides mu doon tukki yoo xam ne mu ngi ko amal foofee ca France ànd ak délégation yoo xamante ne bariwul suñu sukkandikoo ci ay xibaar moom xalif général des Mourides vol spécial la jël jógee ci aéroport international Blaise Diagne démb gannaaw ba ñu ko mujjee gis ci bésub tabaski gi nga xamante ne ñëwoon na teew julli gi ci grande mosquée bu Touba jamono ji nag amul benn xibaar boo xamante ne fësal nañ ko ci tukki nemmeeku bi ak agenda bi nga xamante ne moom la nar a amal foofee ca Paris. Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci li jot na daal di sàkku ñaanam xalif généraux yi ak ñi nga xamante ne ñu Cheikhu Serigne Touba yi ci jamono ji mu jël avion bi ngir daal di a tukki jëm foofee ca Paris moom juróom-ñetteeli xalif général Serigne Touba Khadim Rassoul di Serigne Mountakha Mbacké moom rek daanaka ci gëstu moom moo daal di mës a génn ci ñi nga xamante ne ñoo mës ci jal bile